Pape Amadou Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu di la fay Elisabeth. ngay journaliste analyste politique euh, ñuy jeexal at mi ak yow ci wàllum analyse round up sax laa ko mën a waxe waaye ñu doore ci actualité li jëm ci yeewi askan wi tey mën nañoo ne euh, boo moyul du bokk ci élection locale yi ci yenn gox-goxaan yi nga xam ne euh, ci wàllum recours yi ñu jot a def cour suprême daal dina nag dëggal préfet yi seen dogal tey nan nga jàngatee mbir mi. waaw xam nga élection moom euh, buñ la ci boddee. Mhm. Euh, rek faw nga am loo xam ne lu la naqari lool la te Yewwi Askan Wi euh, li mu dajale ci li nga xam ne moom mooy ay parti politique ba tey ñu tudde ko coalition maanaam ñu dànk boo xam ne day dóorandoo. Mhm. jafe-jafeem bu feeñee ci li nga xam ne moom mooy taxawaayam euh, ci yenn gox yi ñu xañ ko ko euh, danañ ne ah euh, loolu de ci wàllu nga xam ne moom mooy doxalinu démocratie Sénégal dina am lu xam ne lu muy feeñal la ci wàllu bi nga xam ne ay manqué manqué la ndax xëy na am na ñoo xam ne la ñu jàppoon ñoom mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy ay kàngami yeewi askan wi seeni baat ñooña lañ ko waroon a jox kon tey dinañ xaw a nekk ci li nga xam ne moom mooy tàggatémbe ci wàllu yi nga xam ne moom mooy seen taxawaay euh, ndax mën nañoo bañ a jox seen baat beneen candidat wala boog fa ñu yul butikoo dina doon loo xam ni euh, dinañ ko seetaat bu baax lool. Mm-hmm. li ci nekk nag mooy euh, ca la jëm ci li nga xam ne moom mooy seen doxalin ndax càgganteeg Yewwi Askan Wi moo wëlbatiku ci seen kaw ba ñu daan leen façon woowu daan walla bokk dañ leen a xañ euh, ci wàllu yi nga xam ne moom mooy ëpp leen doole ay njàngat a ngi ci biir. kon daal danga jàpp ne ñoom fulaaluñu lool euh, procédure bi nga xam ne moo njëkk dépôt de liste waaw du ma ni fullaaluñu waaye xëy na dinañ ne am nag woyof te bu mhm. nga xam ne dafa feeñ ci li nga xam ne moom mooy seenu doxalin mhm. ndax euh, jaar nañu ci yoon def jéego bu njëkk ci wàllu yoon mhm. euh, cour d'appel daan leen ñu dem fa nga xam ne moom mooy cour suprême cour suprême moom it daan leen ci yenn gox goxaat yi ndax du ci yëpp. am na ci yoon xam ne dañ leen a jox dëkk. mooy ñaar. Mm-hmm. waaw. am na ci yoon xam ne dañ leen a jox dëkk. Mm-hmm. waaye bu fekkoon ne dañ ne euh, ci fukki gox wala ñaar fukki euh, gox. Mm-hmm. ak ñaar la ñu xëccoo. la ca ëpp dañ leen caa daan. dëgg la. ne leen teguwu leen ci yoon. ah tegu leen ci yoon nag juge ba koy wax. ci man li ma gëm mooy du taxaw rek ci xool la ndax da ngaa taaru wala da ngaa ñaaw mm-hmm. dafa am gëstu boo xam ne moom lay def teg ko ci li nga xam ne moom mooy këyit yi nga indi ca nataal ya mm-hmm. ci këyit yooyu nga xam ne moom nga indi ci lay wàññee li nga xam ne moom mooy sa sa ñàkk ne wala bokk liñ la war a daana mm-hmm. kon yow askan wi tey bokkul ci li nga xam ne moom mooy euh, yenn gox-goxaan yi. Mhm. Euh, am na ñoo nga xam ne ñu naan jooy yi moom moo ko teg boppam. donte des na benn recours mais seen ñàkk teewaay ci yenn gox yu ci mel ni Kédougou ak Pikine bi nga tudd sànk li ni mel nan la mën a nan nga ko mën a jàngatee ndax kat yeewi askan wi ci coalition opposition bi yépp euh, mën nañoo jàpp ne ñoom duñu mbaxane ci mbir mi. bu ñuy dem ci li nga xam ne moom mooy ab xëccoo hmm. du ñu ne dafa sew ba duñ ko boole ki kiré ji hmm. dafa mel na làmb rek ñu ne teg nañu million li nga xam ne moom mooy bëre bi ku mu neex na nga sànni li nga xam ne moom mooy euh, na nga yëkkati sa loxo ne dama damaa bëgg a bokk hmm. waaw élection rawatina noonu la mel Mm-hmm. amu ci parti bu ci amul parti bu mag. Mm-hmm. ñëpp ci yam ku ci nekk rek dañ laa war a jox li nga xam ne moom mooy sa chance te loolu moom mooy démocratie it waaw. Mm-hmm. nañ leen bàyyi ñu dem. d'accord su fekkee nag ki nga xam ne moom mooy yeewi askan wi dañ koo lottal ci li nga xam ne moom mooy loolu dañ naan démocratie de kon naxasal na eh, naxasal nañ ko. Mm. waaye it boo amee beneen jàngat di nga ni ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewi askan wi. bu fekkee sart yi nga xam ne moom la ñu teg ne fa la waroon a jaar jaaruñu fa ñu daan leen wax dëgg bu ñu génnee ci làmb ji ñoom rek ñoo ko teg seen bopp. d'accord ci beneen euh, côté bi gis nañ ne jamono ji ñoo ngi inauguré lu bëri ñoo ngi tamit euh, euh, dëggal wala sax accordé li nga xam ne doonoon na ci ay promesse yooyu yëpp njiitu réew mi amal ko jamono ji ndax li ni mel mën naa am benn impact ci programme candidat mi ci élection yu ñu jëm. waaw xam nga Sénégal dafa soppeekuwul. Mm. Euh, soxna si. Mm-hmm. te jamono yi Léopold Sédar Senghor ba fii ñu toll nii. Euh, bu ñuy jub li nga dëgmal li nga xam ne moom mooy ay ay ay wote rawatina ci lu jëm ci li nga xam ne moom mooy gox goxaan yi. Mm-hmm. Euh, président la république ci ñi nga xam ne moom mooy jàngatu ñenn ñi day wone boppam. Mm-hmm. fesal li nga xam ne moom mooy liggéeyam. loolu ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci ginnaawam tey xëccoo ñu ñu mën cee am li nga xam ne moom mooy bénéfice ndax nag ki ma àndal mu joxoñ ma loxo mais bu la falee te sa gox dinaa la jàppale. Mhm. kooku bu wonee li nga xam ne moom mooy ay jëfam yu am solo ci ni mu koy doxale ci réew mi. dañuy am yaakaar ne yow ma nga xam ne moom la joxañ euh, jàppale bu mu lay jàppale dina am loo xam ne luy am njëriñ la ci askan wi ëllëg. Mm-hmm. loolu nag am na ñoo xam ne dañ koy ñaawlu ci ne président la République war toog feeñ bés benn yoon ci li nga xam ne moom mooy. lu jëm ci wàllu nga xam ne moom mooy doxal doxal waaw doxalin bi. Mm-hmm. mais mais boo xoolee d'abord benn duggaguñu ci li nga xam ne moom mooy campagne électorale. Mm-hmm. benn duggaguñ ci campagne électorale. waaye li ci des bëriwul. li ci des soriwul. Mm-hmm. waaw waaye duggaguñ ci. Mm-hmm. leneen li boo euh, euh, boo ko xoolee ki nga xam ne moom mooy yi euh, président la république. Mm-hmm. dafa am li nga xam ne moom mooy agendaam. maanaam jamono yi nga xam ne moom lay jàpp moom ne war naa doxal li nga xam ne moom mooy li mu war a ci ci liggéeyam ci réew mi. kenn du ko wax nit ci bii jamono nga koy def wala ci bee jamono nga koy def. moom mooy xool fa mu fa mu baaxee pour moom ci li nga xam ne moom mooy dayoom ak taxawaayam mu liggéey na nga xam ne moom la war a liggéey te loolu nag pour ñu dindi ko ci réew mi yaakaar naa ne dina jafe lool. Mhm. ci élection yi ñuy jëm euh, li ci des bëriwul pour ñu dem ci campagne yi maa ngi koy wax sànq euh, tey lan mooy lan lañ mën a xaar euh, lan mooy enjeu yi lan nga jàpp ne mooy enjeu yi. dafa loolu. Hmm. xam nga ki nga xam ne moom mooy euh, euh, citoyen bi. Mhm. ñetti euh, date la am ci réew mi. Mhm. ba ñuy fal njiitu réew. Mhm. ba ñuy fal député. ak ba ñuy fal maire. dëgg yi kenn mënu ko ko xañ. bu nekkee ci réew moo xam ne tegu ci yoon la kon. li jëm ci wàll bi nga xam ne moom mooy maire rawatina nga xam ne daf mooy ki gën a sës ci moom. Hmm. ndax ñoo bokk li nga xam ne moom mooy benn gox bi. Hmm. mu nekk ci li nga xam ne moom mooy taxawaayam bu mat def ay ñàngatam ba mu mat. Hmm. tànn ki nga xam moom la bëgg a tànn. loolu kenn wara ko koo xañ te kenn waru ko koo mën a xañ. rawatina bu fekkee dañ de démocratie moom moo lalu ci li nga xam ne moom mooy am réew. Mhm. mu doon it foo nga xam ne dafay joxoñ bu dégloo li nga xam ne moom mooy candidat yi dinaa leen defal ay école mhm. dinaa leen taxawee ci wàllu yi nga xam ne moom mooy wàllu wér gu yaram mhm. leen taxawee ci dinaa leen taxawee ci dinaa leen taxawee ci mu nat xayma segg li nga xam ne moom mooy programme ñenn ñeek ñeneen ñi daan ne bii de la table moom mu taamu nag am na sañ-sañu dem ne kon kii laa ciy fal la nga xam ne moom laa taamu. Mm-hmm. kon daal dinañ wax ni dafa doon euh, moment boo xam ne bu rëy la. ci li nga xam ne moom mooy baatu ki nga xam ne moom mooy baatu citoyen bi ndax jamonoom la waxtoom la bésam la. ñu jeexaleeg euh, li nga xam ne mooy 31 décembre ñu baaxoon euh, di gis njiitu réew mi muy àddoog askan wi li ba tey dañu fi waaye dafa am lu ñu gis ci at yu mujj yi muy bu ci paree day jàkkaarloog taskatu xibaar yi li ren duñ ko ci gis euh, tey nan nga jàngatee justement changement format boo nattee. Hmm. loo def defaat ko. di ci am njàngat. Hmm. bu fekkee njàngat li dafa doon loo xam ne lu gën la. dëgg la. Ah, danga naan naa ko wéyal njàngat la mën naa gën sax ba pare nga ne déedéet dama koy soppi. Mhm. ndax dafa commencé sàppi wala boo gis ca euh, loo yoo xam ni ay ñagas-ñagas la. Euh, ci wàllu nga xam ne moom lañu ñu ko defoon li nga xam ne moom mooy doxin bi. Mhm. dinaa ne. ñi nga xam ne ñoom ñoo yore rajo yi ak télévision yi surtout euh, ñoo ci doom gën a gis seen bopp ndax ñi nga xam ne moom surtout dañ doon bind dañuy nekk ci wàllu mbind mi ñoom la ci ëpp dañ daal dikk rek toog mm-hmm. euh, di seetaan euh, kon mën nañu wax ni njàngat na nga xam ne moom lañ ci def mm. ba ne nañ ko soppi war ko mën a tere te loolu moom mooy li am solo. Mhm. li nga xam ne moom mooy taskatu xabaar bi fu mu mën ci toll di jëfandikoo li nga xam ne moom mooy tasukaayu xabaaram. Mhm. mu war caa bu njiitu réew waxee ba pare mu génn ci la nga xam ne moom mooy njàngat gannaaw ba mu joxee kàddu gi li nga xam ne ñoom ñooy kujje gi. ñi nga xam ne ñoom ñooy mhm. yore li nga xam ne moom mooy société civile. ak xalaati boppam moom taskatu xabaar bi mooy analyse ba nga xam ne moom lay def lépp ñu dëxañ ko ngir fësal rek ganaaw ba njiit réew mi waxee ba pare lan mooy njàngat yi nga xam ne moom lañ cey génne ten loolu moom moo am solo bu dul loolu moom yaakaar naa ni dem ba pale nekk ci gannaaw président de la république naam neex na naam taaru na naam yëg la waaye nag li ci ëpp solo moom mooy liggéey ba ñu def ko na mu gën a sell bi ak na mu gën a mat. Mhm. Papa Amadou Fall ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax. di la wax déwénati mhm, déwénati maa ngi lay gërëm di la sant di leen souhaiter yéen it déwénati di mhm. souhaiter seen auditeurs yi ak seen auditrices yëpp euh, déwénati yàlla defal ñu jàmm ci réew mi. d'accord merci beaucoup monsieur Fall.